cheikh al islam ala ibrahim Niass bi Labgar fii eh, mu nekk tey école ñu doon def journée yi nga xam mooy journée feddan ñu gën ko xamee ci conférence eh, ñeen di ko waa mushahara mooy feeñal lenn li nga xam ne xale yi noora nañ ko di ko jàng fii ci at yëpp juróom-ñeenti weer ñu ñaari bés muy samedi bi ak dimanche bi doon ko jàllale bés la woon xam ne bés bu am solo la nga xam ne buñ koy def am ay parents yoo xam ne dañ koy jàllale samedi bi amoon na di ñu gën ko xam monsieur Ibrahima Babou monsieur Ousseynou Babou macha allah eh, deuxième jour bi gën a spectable gën nekk bés bu am solo mooy eh, ñu tuddee ko diir Babacar Ndiaye nga xam ne eh, koo xam ne la taxawaay si département bi nga xam ne département bu Linguère nga xam ne moo nekk président président maanaam sëñ Ndaara bi nga xam ñoo nekk si département Linguère mu jiit leen diir bu yàgg ñu nekkoon ci moom tamit ba mu yàgg ñu jiite ñu nekk si gannaawam ba nga xam ne mu teete ñu dira xamuñ dara macha allah si école bi ba lo sabon saboon amoon na ñu nga xam ne xale yi nga xam ne ñoo am seen i diplôme ñii juróom amoon nañ juróom-ñaar set xale yoo xam ne ñu doon jot si nga xam ne mooy seen CFEE maa ñu gën ko xam ne certificat ci arabe amoon tamit ñeent xale yoo xam ñu doon jot seen BFEM defoon ñëpp examen ñu ko defoon fële si kaaji nekk loo xam lu am solo la école la boo xam ne ñu ngi sàkk pour ñu dimbale ñu maanaam tàllal seen ñu ngi tàllal seen loxo daal pour si ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy autorités yi rawatina ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ñu gën a loxo école bi da école boo xam ne wax dëgg yàlla jàng li ngay jàng fii si arab moom ngay si France moom nga jàng si arabe diplôme bi ngay am si France moom ngay am si arabe bi ba yàlla dina la dimbale da nga am sa xam-xam si arab am sa xam-xam li nga xam ne mooy ay diplôme nga mën a autorité da nga mën a nekk xam autorité si biir réew mi nga mën si am si kaddu si côté bu ne macha allah Seydou Ousmane ñëpp rawatina yow Seydou Ousmane nga xam ne gis na sa taxawaay si dëkk bi ba nga xam ne keroog li nga xam mooy Labgar info nga xam ne lépp lu xew si dëkk bi rek nga jàllale ko comme nu mu waree loolu sant yàlla si loolu dina tax maanaam képp koo xam ne kàddum jotewut fenn yow nga jotale ko foofu ba ñëpp mën koy dégg loolu sant yàlla la nga xam ne lu yàlla junjoon la macha allah loolu ñu ngi ci mooy leen solaas waxoon ne an anni wala aayatan lii nekk na si aaya yi nga xam ne ñu ngi ko yaa ngi koy jotale yàlla yi ndax bi ko buñ jàllale mu waroon a yem biir Labgar nga jël ko jàllale ko mu nekk international léegi loolu suñ sant yàlla la ñoo si gërëm yow Ousmane Mangane bu baax macha allah waaw ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñëwoon fii si jotaay fekk siñu ñi baxee ko ba Saalum ñi dëkk biir Jolof Linguère wër li nga xam ne ba Fuuta ñoo fi jotaay waaye ñu ngi sant mboolem parents d'élèves yëpp eh, xam ne um madras jëna palaan waaye ki nga xam ne aussi mooy bàyyi madra école di Saliou palaan am mboolem imam ñi nga xam ne imam mboolem borom xam ko dëkk bi ñu ndokkee maam allah di sant mboolem parents d'élèves yi tamit wax dëgg yàlla lii la woon kontaan si ñoom bu baax a baax a baax kontaan ñi nga xam ne mooy jàngale ki nga xam nekkoon ak ñoom fii si noor bi métti lool waaye alhamdulilah mu Oustaz Diallo ak ñeneen ñi fi nekkoon ñu sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah si Ousmane